Thank <laughs> you. Toujours dans votre acte du jour de ce vendredi 26 euh, janvier 2024 sur la chaîne des grands événements VIP People TV s'informer juste vrai suñ fa jógee dañuy dem fële ca Bambey ginnaaw bi nga xamante ni ay choix yu plénipotentiaire potentiel. xamante ni amul concertation boo xamante amal nañ ko di Benno Bokk Karnak nag dafa daal di démarqué interpellé ki nga xamante ni mooy di le président Macky Sall muy benn mandat boo mandat collectif la boo xamante ni tey suñ ko jaarle ci li nga redynamisation

ñu sukkandikoo ci collectif yi ñi ngi xamante daal képp kuy membre bi nga xamante nga bokk ci collectif bi ñi interpellé qui di président de la république Macky Sall xamal ne ko daal kii di candidat Amadou Ba mon mi ñu chargé pour que mu yor élection yi qui di Benoît sambo ak collectif bi si jëmele ko ci redynamisation politique bi nga xamanteni Benno Bokk Yaakaar ci biir département de Bambey dañu constaté dal dans ay regrets yo xamanteni plénipotentiaire ay une suñu entre les choisir li nga xamanteni moy amul benn concertation ginnaw ci collectif bobu nak luñu bëgg wax son excellence le président de la République Macky Sall ginnaw candidat bi nga xamanteni moy Amadou Ba di chargé des élections aussi di Benoît sambo ñom dal dañu démarquer wu totalement ci bépp choix bo xamanteni tay tey mën nañ ko indi jaarale ko ci ay collaborateurs et amul ben forme bo xamanteni ni potentiel euh, plénipotentiaire bokk na ci en tout cas l'idée collective collectif bi mi ngi rejeté di rejeté également les lo xamanteni dafa jógee ci ay décision jaarle ko ci li nga xamanteni ñing ko associé jaarle ko ci département de oui muy collectif bi nga xamanteni dal dañuy réformer sen engagement ci wetu kii nga xamanteni moy son excellence le président de la république du Sénégal di Macky Sall ginnaw bi nga xamanteni dal pour ñu mëna am ben large victoire ci candidat ki nga xamanteni moy Amadou Ba au soir du 25 février 2024 muy collectif bi nga xamanteni dal ñoo nek fofu ci Bambay ginnaw bi ñu ko xamalee jaarale ko ci ben communiqué ñi nga xamal dal parmi ñi nga xamanteni moy signataire signataires yi ñu figuré ci bir ki di Eli Fall di maire commune bi nga xamanteni moy Ngoy ak ki nga xamanteni moy docteur Cheikh Ndiaye di maire sortant bi ak ki nga xamanteni moy Lambay di ancien DG remercier li nga xamanteni moy mooy ki nga consultant bi di Modou Ndiaye ak ki nga xamanteni moy Baba Garage Nek ancien. HSCCT di Yakou Kan ki nga xamanteni moy maire sortant bu Gawan di ancien aussi faux ci au conseil collectivité territoriale ki nga xamanteni moy maître Pape di avocat à la cour euh, président bi nga xamanteni comité sénégalais des droits de l'homme ak Kinga nga xamante ni tey maire sortant bu professeur Mathioro Fall di enseignant en même temps chercheur à l'université de Thiès ancien maire de Thiakhar ak ki nga xamante moy Modou sar nek fofu ci au conseil collectivité territoriale élu de bambay di Fatou à ak ki nga xamante tay moy responsable lepp lu jëm ci walu département bu Bambey jaarle ko ci jigenu Benno Bokk Yaakaar yi ak ki nga xamante moy Mbaye Diouf di géomètre topographe enseignant chercheur responsable politique bu APR bokk fofu ci commune Ngom Ngom ak ki nga xamante moy docteur Djibril Thiaw di enseignant chercheur nekk foofu ca 4 ak ki nga xamante moy maire directeur CFPTT du coordonnateur collectif bi Dal signé li nga moi lettre Binga nga xamante Nenko qui est ko président de la république Macky Sall Kadal na Andou que daal ñoom ànduñu benn yoon ci choix yi nga candidature Amadou Ba di Benoît Sambou def na ko ci ay choix yo xamanteni ni ay plénipotentiaire la yo xamanteni ni amul benn concertation boo xamante ni nañ ko ñom dal ñi ngi démarqué wu ci bép décision bo xamanteni ñom jël nañ ko mais quant à loolu ñi ngi affirmé waat sen engagement ci ginnaw ki nga xamanteni moy son excellence le président de la république Macky Sall pour une large victoire ki nga xamanteni moy sen candidat bu mu leen choisiral di Amadou Ba au soir du 25 février 2024. <laughs>